waaw tey dañu ñëwoon fii buntu Pikine pour def li ñuy tuddee opération libération d'emprise maanaam fexe ba euh, li nga xam ne ni moom la nguur gi euh, namm fii ci bërëb bi ñu ñu ñu jox ko emprise bi maanaam jox ko terrain bu mu mun a liggéeyee gis ngeen fii ci buntu Pikine li fi nekkoon mooy mooy occupation irrégulière de la voie publique euh, ñu waxtaan ci ak ñoom nag ci weer yële ñu génn wolen ñom ñep ñu ñew réunion ñu ne len fi état daf ko soxla daf ko soxla parce que dañu am projet projet bo xamné ni mom moy projet d'amélioration de la mobilité urbaine ci ci biir projet bobu aussi dañu wara tabax li ñuy wax autopont feulé ci rond-point euh, Lobat Fall euh, donc bu ñuy tabax autopont bi aussi dañ ci yokalé ay voies de déviation voie de déviation bi fi la wara jaar mu nekk lo xamné ni dañ ko fi tabax euh, euh, mu nekk deux fois deux voies mu gën a génn ba euh, fële ci voie de contournement bi donc ñu woo leen expliquer leen projet bi wax leen aussi ne leen dañoo soxla bërëb bi nañu jël seeni matukaay pour mën a libérer emprise bi ça fait ay trois à quatre mois boobu ba léegi ñu seetlu aussi que ne ñoom demaguñu woon ba léegi ñu ciy remercier aussi le maire de la commune de Pikine Ouest Pape Gorgui Ndong ci forum bi ak réunion yi mu tenir ak ñoom waxtaan waxtaanoon na ak ñoom ba xam ne ñoom ci njabootam lañ bokk ci njabootu réew mi lañu te commune am lañu nekk mi ngi def ay jéego pour utal leen fu ñu mun a continuer seen commerce mais fii moom vraiment ñu ñu xajal ñu ko ñu def fi liggéey bi nga xam ne ni moom lañ fi nam muy defar fi deux voies deux voies mu dem connecté wu ak euh, l'autopont bi ñuy tabax biir kër euh, fële station EDK bi nekk euh, Lobat Fall waaw liggéey bi lii rek la doon xaar bo gisee li biñ ko commencé yàgg na amna ay 4 mois mais ñi ngi doon xaar di xaar di xaar di yaakaar ne aussi ñi ngi ko séxal aussi dinañ dégg ne sommation bi jot na nañu jéem a ut pexe pour dem feneen euh, liggéey bi buñ né nee jot na mooy Ageroute mënul woon ñëw di teg ay matériel am di baliser tant que libéré wuñ emprise bi complètement mais comme tey fii ak suba dinañ libérer totalement l' emprise yaakaar naa ne buñ ko libéré rek pour ne pas ñu amaat beneen réoccupation nous dinañ ñëw baliser ngeen gis engin commencé et je crois que euh, d'après l'agenda dinañu commencé ci biir semaine bi